li ñu xëyee tey

extérieur et puis li ñu doon waxtaanee sànq muy lancement Sénégal Vision 2050 accès et moteur de croissance d'un nouveau Sénégal Sénégal euh, ak euh, nataalu président de la République euh, Bassirou Diomaye Faye le mythe de l'innovation et les attentes des économistes ñu xëyee ci tey jilee et puis euh, l'observateur ñëwi tamit ci immigration irrégulière Dianké Manxa le drame sans fin des familles des 21 morts euh, conséquence des euh, lâchers d'eau du barrage de Manantali onze villages de Bakel yoo xam ne daanaka jamono ji ndox mi moom moo fa fees dell ak risque sanitaire yi mën a am ay am na assurance nag yu jóge ci ministre de l'intérieur di général Jean Baptiste tina l'observateur ñëw tamit ci wàllum tàggat yaram football équipe nationale euh, Ismaïla Sarr diagnostic d'un manque de constance chronique à l'étranger euh, des spécialistes ñu dem xooli ji record moom li mu xëyee tey jëlee ci altine bi wàllum tàggat yaram à sa une record gis ngeen ko ak euh, CAN 2025 Malawi Sénégal de demain muy éliminatoire yi suba des changements attendus sur les côtes sur les côtés libérés par la fédération Jacobs rentre en Turquie mi ngi ci Euh, page 6 bu journal bi et puis avis d'expert nekk ancien international nee na mettre la même envie et la même détermination euh, ci euh, groupe L bi tombeur du Burundi hier le Burkina qualifié pour Maroc 2025 et ci premier galop d'entraînement suñu gaynde yi fële ca Malawi Lilongwe 24 lions présents Ilimane ménagé c'est à lire également à la page 6 du journal Record euh, xibaar yooyu yëpp ñu junj ngeen mën koo lire ci ñaari yëglekaay yi groupe Média di édité tout de suite euh, la météo en